mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen ndax ñun si rajo Rewmi FM comme nun koy amalee dimanche bu jot rek fii ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi te nag ñoo am ci yéene rek dalal ci ki nga xam ni moom moo di Bah Diakhaté nekk rek directeur bu cabinet bu euh, maire bi nga xam ni moom mooy bokk moomeel bu Pikine Ouest di Pape Gorgui Ndong moom la ñu war a fas yéene rek dalal tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci émission gox bi daal di waxtaanee la nga xam ni moom moo jëm. ci gox ak goxaan ba nga xam ni moom moo di ca Pikine Ouest Bah Diakhaté ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. waaw ah, même ba ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu waa bërëb bi yëpp. Mhm. muy waa réew mi FM. ak euh, ñëpp ñi nga xam ñu ngi fi liggéey. ci ki mhm. leen jiite ba ci ki mujj. Mhm. di nuyu aussi euh, la commune de Pikine Ouest. di nuyu monsieur le maire Pape Gorgui di nuyu tous les conseils municipaux. di nuyu aussi euh, tout ce qui est la jeunesse euh, politique. nga mhm. xamante moom moo fa nekk ainsi que les autres jeunes yi nga xam ne mhm. solo waxtaan wi dañu koy daal di ubbee rek ci li nga xam ne moom moo jëm ci coronavirus bi. Mhm. ak li nga xam ne moom moo jëm ci ñàkkub sensibilisation bi li ni mel mu ngay wéy di continuer di faat waaye am na ci ñoo xam ne itam ba tey gëmuñu ni jàngoro ji mi ngi si nim réew te mi ngi faat ay bakkan. li nga xam ne moom moo jëm ci baar bi ma ngay gën di yokk jàngat lu njëkk lii euh, sak xalaat ci wàllu wi ni mel. waaw euh, mbirum mbas mi moom dañ ci euh, gërëm bu baax a baax son excellence le président de la république ci depuis bi mbas bi tàmbalee Sénégal ba léegi mesures yi nga xamante ni jël na ko. Mhm. tàmbalee ko ci jiital ñi nga xamante ni ñoom ñooy autorité sanitaires yi. ci mhm. ñu wax ci seen gis-gis ak seen taxawaay lan la nguur gi war a def pour ñoŋal askan bi par rapport ak virus bi. Mhm. gis ngeen ne depuis lors saa yi nga xam ne laaj na ko dina dajale ñoo ñu déglu leen. Hmm. donc pour mën a pour mën a natt mën a xayma li nga xamante ni jumtukaay la wala li nga xamante ni xaral la bu jëm ci mbirum xeex jàngoro bi. Hmm. depuis lors gis nañ ni aussi li nga xamante ni président daal bi teg na ko récemment mi ngi ko ubbi ci réception bi mu réceptionné euh, centre de maladies infectieuses gis nañ bërki démboo Ndiaye vaccin yi nga xamante ni indi na ko Sénégal muy nekk une première. ñu nekk parmi les six premiers pays africains yi nga xamante ni dotew nañu vaccin yu mel noonu mm-hmm. donc loolu yëpp ko defee je pense que c'est pour assister la population jàppale leen dimbali leen ba nga xamante ni mbas mi même bu nekkee ni mi ngi faat mi ngi faagaagal mm-hmm. mais jéem a jéem a amoindrir jéem a mm-hmm. wàññi dooleem ba nga xamante ni li mu waroon def ci ay dégâts dégâts mais lan moo tax message yi du jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ñu ci bari dañuy gis ni message bi duy jàll Euh, pour man nag euh, je pense bien que ni askan bi souvent euh, damay naan de duñ bëgg déglu information bi parce que je pense bien que ni télé boo gis ñu ngi ñu ngi jàllale spot yi ñu ngi koy wax jël leen seen mesure ñu ngi koy bind di ko taf ñu ngi koy wax fu ne donc nit ñi ñoo war a am tuuti prise de conscience ci feebar bi. Mhm. ginnaaw bi nga amee prise de conscience nag maintenant nga jàpp ne. peut-être en Afrique ñun dañu am chance su suñu ndaw yi mën a mën a résister bu baax a baax a baax li nga xamante ni moom mooy moom mooy virus bi. Mhm. mais fekk ci suñu suñu mag yi. Mhm. donc ñun d'habitude dañuy nekk des porteurs asymptomatiques. ñoo mhm. xamante ni symptômes yi du du feeñ ñun. donc dans ce cas mën nañu wàll suñu kilifa mën nañu wàll suñu entourage yi nga xamante nii dañu am taux de comorbidité. donc loolu lu jar a bàyyi xel la. donc je pense bien que l'État est en train de faire un excellent travail. à la sensibilisation. di jàllale information yi à chaque fois qu'on voit on à partir de dix heures le ministère de la santé dina taxaw jàmmaarloo jàkkaarloo Sénégal gi yëpp wax li fi am fàttali nit ñi aussi mesures yi nga xamante war nañ ko jël muy la distanciation sociale muy les mesures barrières yi nga xamante ni tey jii nii li si jëkk mooy le port du masque li si li beneen bi mooy képp koo xam ne amoo foo dem amoo loo def nga toog sa kër donc loolu ay ay mesures la yoo xamante ni euh, nguur gi mi ngi koy jël donc euh, uniquement dans le dans le souci bien entendu de limiter la propagation du virus. Ah. mais dañu gis ci beneen wàll bi dañu ne li nga xam ni moom moo jëm naam vaccin bi dinañ ci ñëwaat waaye indi couvre-feu boo xam ne li nga xam ne moo jëm ci cas yi ma ngay gën di yokk ginnaaw ban ko indee ba tey eh, ñu ci bari dañ jàpp ni cas yi wàññeekul dafay gën di yokk ci diggante Dakar ak Thiès ministre de l'intérieur wax na ko Antoine Félix Diome wax na ko ba mu doon fësal li nga xam ne moom moo jëm ci xibaar yi nit ki démb yokkaat nañ li nga xam ni moom moo jëm ci couvre-feu bi est-ce que da nga jàppoon ni bàyyi woon ko euh, gënut no non li ma doon jaaxal mooy état bi jël benn disposition normalement la disposition bi nga xam waroon nañ ko jël mooy fexe ba confiner nit ñi. yow loolu nga gis c'est la meilleure solution. confinement mais mais c'est la meilleure solution. di nga leen jox meilleure lekk option. Hmm. non moom laay wax ça hmm. maa ngi ñëw je hmm. développe. c'est-à-dire dama ne. li ma gisoon man di gënoon mooy ñu def confinement total. mais xam nga réew yu mel ni suñu aussi nit ñi le plus souvent bëccëg la ñuy liggéey. donc mënoo jël dëkk bi tëj ko bëccëg bi encore. c'est-à-dire am na ñuy liggéey guddi de. waaw non mais c'est c'est minime. par rapport ak ñuy liggéey bëccëg. c'est-à-dire que Sénégal yàlla moo dogoon ni la plupart des activités euh, activité bi li ëpp secteur informel la mhm. ñoo ñu boo xoolee suñu yaay yi xëy di jaay jën mhm. ñii di xëy di jaay ndugg ñii di xëy dem di di di taqalee taqale ñii di def nangam ñii def nangam donc la plupart mhm. ñooñu dañuy xëy diggante huit heures ba dix huit ñu ñu wàcc donc ñooñu il faut leur permettre aussi ñu am activité bu ñu def mais aussi permettre au pays parce que réew du du du du du ay du ay bind ay ay xaatim moo ko yor réew li ko yor mooy koom donc boo tëjee bëccëg bi donc le pays va souffrir énormément en termes Mm-hmm. donc li gën mooy fexe ba restreindre les mouvements les déplacements inutiles parce que mm-hmm. là la nuit les gens n'ont pas tellement besoin de bouger mm-hmm. donc quand tu n'as pas besoin de bouger tu peux rester soi donc ba le lendemain ñu war a xëy dem mais bu jël couvre-feu bi rek mu nekk lu spécial parce je pense bien que ni il d'autres mesures prises par les autorités sanitaires mais en temps par les autorités de l' état du Sénégal ci wàllu sécurité. Mhm. donc moo ñi nga xamante ni ñoom ñoom ci wàllu ministère de l' jël na ay jël na ay ay ay ndogal. Mhm. ndogal yooyu la ko nit ñi respecté. na ko d' abord il faut ñu sensibiliser transporteurs yi. Mhm. pour oto yi di fees. di fees dell ba nit ñi tànqaloo. moo ne jëloon nañ ci ay ndogal de. moom laa wax il faut ñu làbbali ko. Hmm. c'est-à-dire il faut aussi que suñu force de de, de sécurité et de défense yi gën a taxaw. Hmm. ci ci mbir mu mel noonu cest di dire que ñu bañ ci am euh, nu ñu koy de sax parce que je pense que jàpp ni teg ko ci yoon. Hmm. man moo ma gënal jàpp ni di ko suut suuf. donc loolu lu am solo la donc man pour man l'État a fait ce qu'il avait à faire au peuple maintenant à la population de prendre toute la responsabilité qui y est pour au moins ñu ñu xam ne ñun d'abord. nous sommes de Sénégalais. Mmh. nous avons un État qui s'appelle l'État am ku ko jiite am ñu ñu wóolu teg loolu seen loxo am ñoo xam dañoo jàng xam-xamu faj ak xam-xamu docteur mhm. donc ñooñu bu ñu waxee nañu fexe ba sukkandiku ci li ñu wax au mhm. moins que chacun les prescriptions mhm. des autorités sanitaires afin que vraiment la propagation du virus ñu mën ko ñu mën ko atténuer ba ci wàll wi ni mel ñu gis njiitu réew mi gàttandu li nga xam ni moom moo jëm ci vaccin loowu njëkk gi euh, gis nañ ko mu gàttandu ko ak ay gàngoor euh, naam euh, indi askan wi est-ce que tey jotul ñu sensibiliser waat askan wi ngir vaccin bii di ñëw ñu ci bëri dem euh, vacciné wu ci ñi nga xam ne ciblé nañ leen. oui euh, man ci laay ci laay xaw a dalee tuuti ci l'élite intellectuelle bu Sénégal parce que débat bi ñu installé. installé ko ci bopp sénégalais yi mooy vaccin vaccin bi baaxul wala nangam nangam fexe ba def ci bopp sénégalais yi. Mm-hmm. ne vaccin bi baaxul. malheureusement au Sénégal on a une opposition qui s'oppose surtout. opposition bi rek la da jàpp no ñoom la. Mhm. ça c'est tu tu n'entends que l'opposition sur ça. c'est-à-dire c'est une opposition qui s'oppose surtout même sur le bien-être de la population. je pense que man kóolute bi ma am ci médecin bi fii médecin dina la tëral anesthésier la. Mhm. xotti sa biir ngay nelaw nga wóolu ko. Mhm. ki nga wóolu jox ko mu yor paaka wala ci ci ñoom seen seen seen langue comme ni ñu koy tuddee mu yor ciseau paaka ay lu kenn xamul fiil ak ay wëñ xotti sa biir def ca la ma war a def tëjaat ko kooku nga wóolu ci loolu wax dëgg yàlla bu nekkee dem na ba xayma ba saytu ne lii ci feebar bii moo nu mën dimbali pour ñu mën a au moins wàññi ndoxu virus bi. Mhm. donc ñooñu war nañ leen gën mën a wóolu parce que une chose à éclairer. Mhm. mooy du président Macky Sall mooy décider ni si wàllu santé. lii la ñuy def il de conseiller ci wàllu woowu noonu. yu ñu teg depuis bi mbas mi amee. ñooñu ñooy xalaat ñooñu ñooy saytu looy dégg professeur docteur loolu da ngay dégg donc ñooñu la seen xam-xam. jëm ci wàll bi mais senegal laa gis ñoo xamante ni euh, au Sénégal il y a 16 millions d' habitants 16 millions de juristes 16 millions de médecins 16 ku ne xam nga lu ne. ñu dem ba ànd seeg benn opposition un peu irresponsable dem ba dugal sénégalais yi seen bopp tey jii ne vaccin bi baaxul. donc maintenant ñun loo xam ne tubaab bi jël nañu ko nekk kobaayu Afrique ñoom ñu tubaab bi ñoo njëkk jël vaccin. Mhm. donc mën nañ jàpp ne bi yoon tubaab bi moo nekk yu Afrique xool nañ leen pendant presque un mois ñu ngi vacciné wu. mi ñi ngi ñu ngi am ay avancé ci wàllu vaccin bi donc pourquoi pas l'Afrique toujours rek lu ñuy def rek ñun ñoo ciy tardé pourquoi parce que dañu am idée taxaw ci lu bëree bari bari et aussi ce ki c'est ce qui freine le développement de nos de nos différents terroirs en Afrique laay wax dans l'ensemble donc loolu moo ñuy freiner ci lu bëree bari bari moo tax euh, toujours fu ñu fu ñu fëlee rek euh, maanaam ci ginnaaw la ñuy fël mais Sénégal dans son ensemble amal nañ njukkal son excellence le président de la République ci clairvoyance mu def ay jéego itam sensibiliser askan wi ngir ñu dem mën a ñàkku ji gis nga biiru feebar bi mhm. ku wax ne sensibilisation amut. Hmm. bañ dalee dégg vaccin bi hmm. vaccin bi. y a de cela deux mois. Hmm. le ministre de la santé bi ñuy sant ko gërëm le ministre Abdoulaye Diouf saar bi nga xamante tey jii nii gàcce ngalaama bi feebar bu commencé ba léegi Sénégal bokk na ci ñuy lim dee yu gën a néew. c'est grâce ci benn vision bu claire bu président teg li nga xamante mooy autorité sanitaire yi ñoo ñu nekk di ci liggéey donc depuis lors ñi ngi wax ci wàllum vaccin. ñi am seen xam-xam màcc jëm ci wàllu woowu ñu ngi doon xalaat ban moo gën. Mhm. parce que y avait pas besoin de précipitation il fallait entre plusieurs offres ñu xool bi bi nga xam moo gën a adéquat Sénégal mais bi nga xam ne aussi ci wàllu ci wàllu faj maanaam dafay dafay faj askan bi. Mhm. donc pour man le débat n'a d'être cest dire que ni tey jii. Euh, li waa Sénégalais yi mooy ñu xam ne vaccin yi ñëw na. Mhm. et y a des cibles aussi. Mhm. Euh, le le le vaccin n'est pas destiné à tout le monde y a des y a des y a y a mhm. donc ñu ñu ciblé aussi nañ fexe ba gunge leen accompagner leen ñuy ndaw yi ñu dem jëli vaccin bi au moins ñooñu ñëwal leen. en attendant maintenant les deux deux millions d'autres vaccins yi nga xam ne président président annoncé na ko. am na solo 88 le 628 84 84 wala 88 628. 85 85 wala 88 628 86 86 bu ngeen mu ngi dugg rek bokk ci li nga xam ne moom moo jëm ci waxtaan bi dooree ci Pikine Nord gox bi la ñuy waxtaanee est-ce que yéen seen mais seen mairie génnee na matuwaay yu doy ngir mën a indi jàppandalam ci deuxième vague bi nga xam ne solal na huit askan wi yéen lan la ci mairie bu Pikine west daal di génne ci koppar xeexee li ni mel wala deuxième vague bi est-ce que dugal ngeen ci seen loxo waaw xam nga première vague bi euh, bi mu amee ñëw Sénégal te pense que ñu ngi wax le 2 mars. Mm-hmm. Le, officiellement euh, maanaam virus bi doo feeñ Sénégal. Mm -hmm. euh, abord le le semaine bi stop euh, booru 7 mars. Mm -hmm. donc le ministre a convoqué le maire. Mm -hmm. de la commune de Pikine dafa convoqué un conseil municipal spécial. Mm-hmm. bi nga xamante ni moom moo jëmoon ci xalaat ak teg benn comité bi nga xamante local. Mm-hmm. de gestion de l' donc ci loolu lañ toog le 14 bi si topp donc ci ci ci ci ci présidence su le le médecin chef de district ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les les infirmiers ou infirmières chefs de poste. Mm-hmm. ak gox yi ak le conseil communal de la jeunesse. ak waa Croix-Rouge et consorts et les ASC même les partis politiques yi nga xamante ni de l'opposition mm -hmm. tout le monde était convié autour de, la réflexion sur le système de riposte par rapport au virus ci noonu ñëpp gis nañ ko teg nañ ko seen bët mm-hmm. parce que les images sont là les vidéos sont là ci la ñu doté tous les postes de santé et centres de santé de combinaison de sécurité de combinaison de protection de gel de de de de de produits désinfectants. Mhm. de thermoflash. amul benn structure administrative bu am Pikine Ouest lu dul le maire doté na la de thermoflash de gel à suffisance de produits désinfectants de masques yooyu et de lavoir. Mhm. donc pour permettre leen au moins ñoo ñoo ñoŋal leen. en second amul benn juma bi nga xamante ni xam nga début Covid bi dañ tëjoon jumaa yi mhm. mais bi nga xam ni xaw nañ lever tuuti euh, mesure bi ba permettre ni jumaa yi bëgg julli dañ dañ leen permettre julli mhm. le maire automatiquement a doté chaque grande mosquée d'un lavoir ak ay masque suffisamment de masque ak li nga xamante moom mooy ay gel ak ay demee noonu mhm. donc euh, l'école ba mu waree ubbiwaat donc c'est des millions Euh, presque euh, plus plus plus de quinze millions yi nga xamante ni def nañ ko. Mhm. ci école bi ba muy waaj a amul benn école bu nekk dans la commune de Pikine Ouest public comme privé. Mhm. lu dul la mairie yi jox na la lavoir mhm. jox na la suffisamment de gel et à chaque élève ñu doté la trois masques. bi lay permettre tey jii nii nga mën di jàngi di ko échanger donc amul benn élève bu nee daña jox saabu. jox la gel jox la trois masques teg ci buntu école bi lavoir jox la thermoflage. et sa saytu bi yéen a ngi koy amal. effectivement c'est-à-dire le maire en personne dem na ci sur place. xool ba ñuy reprendre école yi aussi nu ñu taxawee par rapport ak mesures yi nga xamante ni jox nañ leen ko. Mhm. ñu ci sant baax a baax bàjjenu gox yi et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ci biir émission bi naa ci dugg. Mhm. le maire yóbbu seen subvention jëlee ko de cent cinquante mille à un million de francs. pourquoi parce que tout simplement rôle bi ñu joué dans la sensibilisation mais aussi taxawu école yi. ci buntu école yi taxaw jumaa yi ci buntu jumaa yi pour au moins que les gens respectent les mesures les mesures barrières mhm. donc loolu mooy vague bu njëkk bi mhm. moo tax le maire la fois dernière a lancé un appel solennel mhm. à l'endroit de l'état du Sénégal ko muy joytu si effectivement pour mu mais deuxième vague bi lu ngeen ci def yéen parce que euh, bii moo gën a gaaw de waaw xam nga une mairie dafay dafay dafay dafay dafay agir ci budget initial am donc budget bi dafay am lu mu tënk maintenant bu fekkee ni le conseil municipal a décidé de de de euh, à nouveau des actions par rapport à Covid 19. Mhm. il faut ñoom ñu convoquer un conseil municipal ne lii ñu jàppoon pour def ko fee dañ koy jël yóbbu ko pour Covid bi. Mhm. donc loolu conseil municipal moo ko dis du maire mooy toog bureau rek. Mhm. ne damay def lii ci wàllu dépense maire mais dañu lu tax ñuy wax ko mooy dañu gis ni deuxième vague bi dañu gis ni maire yu bari dafa mel ni dañu xaw a seen loxo. non téyewuñ seen loxo dañoo amul luñ luñ doon joxe mais euh, a jox yu itam masque yeeg yeneen nag. Euh, li nga xam xam nga loolu nag ñu ngi ciy ñu ngi ciy gërëm bu baax a baax la population. Mhm. de Pikine Ouest parce que am na su ñu bëri ñoo xamante nii tey seen coobare boppam ah, dañuy jóg di joxe masque di jóg di joxe gel jóg di joxe loolu initiative parce que face à à à la montée des cas communautaires il nous faut une riposte. communautaire mm -hmm. donc riposte communautaire bi ci commune population bi la woon bàyyeekoo jëm ci seen bopp encore donc tey alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi sant population Pikine baax baax Euh, déjà bëriwuñ lool lool ay kaa de am na fa mais taxu koo bëri yoo xam détecté nañ leen xam leen. Mhm. mais aussi mesures yi nga xamante war nañ ko jël wax dëgg yàlla kër docteur ga fa ne ñu sant bu baax a baax le docteur Assane Ndiaye mi dem. di teeru bu baax les bras ouverts le docteur madame fay bi nga xam moom moo fa ñëw présentement. Mhm. amul liggéey bi nga xamante ni lu dul waa centre de santé et les postes de santé ñu ngi koy liggéey pour taxawu askan bi. Mhm. par rapport ak par rapport ak jàngoro bi. kon su ma la déggee mooy yéen seen koppar jeex na tey la nga xam ni moo jëm ci ni ngeen xeexee mbas mi est que kon du ralentir xeex bi. déedéet non jeexul c'est-à-dire que xam nga chaque année y a a une enveloppe destinée à la santé. tigi Pikine Ouest ba Pape Gorgui Ndong di ñëw euh, je pense que buñ ci duggee ci biir danga ko wax donc fi mu yóbbu fi mu yóbbu enveloppe santé maire mësu ko fa yóbbu donc ci li ñu alloué santé bi ci loolu nga mën agir ti boo ci agir récemment semaine bi passé leen dajalewaat conseil bi comité bi nga xamante ni moom mooy comité local de gestion des épidémies ñu xalaat réfléchir sur la stratégie de riposte par rapport au deuxième vague bi def expression de parce que noonu la ñuy fonctionner dañuy dajale comité bi mu xalaat comme ni ko président defee parce que dañuy animé wu stratégie de défense bu président de la donc dajale comité bi ñu xalaat budgétiser ñu jébbal ko maire mu jébbal ko ñi nga xamante ni moom mooy son secrétaire municipal pour mu jóg euh, dem dem pharmacie régionale hmm. pour li liñ ko laaj yëpp ci wàllu matuwaay mu jël ko jébbal ko ñi nga xamante moom mooy personnel sanitaire pour ñu mën agir ak ñi nga xam ñooy bàjjenu gox yi pour sensibilisation bi mhm. ak distribution massive de masques et de produits hydroalcooliques mhm. dañ gis itam li nga xam ne moo jëm ci jàngoro bi dafa mel ni faat na ay marché yu ci bari yéen xëy na de fa ngeen ni dem di uti seen koppar tey ñoom la nga xam ne moo jëm ci semaine bi benn fan bi duñ ko matale muy dimanche bi dañuy dem di daal di xoolaat marché yi ndax yéen yéen a ngi bàyyi xel itam ci dugg ak génn marché yi ndax yéen itam yéen a ngi jël seen matuwaay ci li nga xam ne moom moo jëm ci askan gi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci marché yi ndax Pikine Ouest am na ay marché yoo xam ne yu mag la li ci mel ni rek marché Savanel ak yeneen euh, donc est-ce que yéen a ngi bàyyi xel ci yenn secteurs yooyu waaw xam nga ñun dañu am marche Chavanel am marche Dibisar amoon marche dimanche. Mhm. déjà euh, les mesures dafa dindi li nga xamante moom mooy. moom mooy marché marché hebdomadaire yi. Mhm. mu nekk benn coup boo xam da nga koy subir. Mhm. ci wàllu kon yëg ngeen ko ci wàllu recette. bu baax a baax. Euh, Pikine Ouest malheureusement dañu heureusement sax laay wax. ba feebar mooy malheureusement mais heureusement. travaux état fa jaar. Euh, dindi lu bëri bëri muy autopont bi ñu fay def. dindi lu bëri bëri ci li nga xam moom moo doon entrée ay recette ci mairie bi. donc aussi tamit mbas mi ñëw ñu dindi marché yi ba pare am heure boo xam ne dañ koy jagleel marché marché marché journalier yi mhm. mais je crois bien que ni de de de concert comme ni ma la waxee leen dajalee li nga xamante ñoom ñooy euh, comité local bi de concert ñuy sant bu baax a baax di gërëm le délégué de marché Chabagnal muy muy Talla Gakou ak mhm. di gërëm le délégué de de de de de muy euh, ñoom Abdou Aziz Ba mhm. euh, à chaque fois il se rencontre avec maire di xool nan lañ war a mën a accompagner population bi ci matuwaay yi nga xamante ni war nañ ko mën a jël pour au moins ki dugg ci marché bi ak ki génn ci marché bi nga mën sàmmonteeg di nga xamante moom mooy moom mooy disposition yi nga xamante ni. Euh, autorité sanitaire yi nga ko kuy dugg ci biir marché bi di nga est-ce que yéen koy superviser bu baax itam. waa xam nga doo mën topp ci ginnaaw kuy dugg marché ku ne di xool mais dans l'ensemble euh, selon di délégué yi parce que man délégué yi wax dëgg yàlla euh, je le crois au mot parce que taxawaay bi war a am ñu ko taxaw. donc wax dëgg yàlla ñi ngi taxaw ci sa sàmmanteeg li nga xamante moom mooy disposition yi nga xam état jël na ko mhm. pour pour mën a aar doomu aadama yi ba tey mbokk yi mën ngeen dugg bokk ci waxtaan bi 88 le 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 di ci dalal ki nga xam ni moom moo di baa Diakhaté nekk directeur bu cabinet bu euh, maire bu pekin Ouest tey dañu gis ni euh, Pikine Ouest naam am na loo xam ne itam mën nañ fa teg tànk que ni la nga xam ne moo jëm ci wàllu ay jumtuwaay am na fa waaye am na lu desandi la nga xam ne moo jëm ci wàllum commune bi ba ngeen ñëwee ba tey am na loo xam ne moom moo gën a jàmb loo xam ne faaw ngeen dox ko wala am na lu ngeen fa jot a def lan la. Euh, ci loolu nag euh, dinaa ci sawara a tontu bu baax a baax. Mhm. pourquoi parce que xam ngeen ne mairie Pikine Ouest euh, mooy mairie bi nga xam ni ci Pape Gorgui Ndong est le premier maire qui est venu après l'acte 3 de la décentralisation muy une mesure boo xamante nii volonté publique président politique bu président de la République la son excellence Macky Sall. Mhm. pour ñu mettre en place des communes intégrales yi nga xamante ni euh, dañuy taxaw ci seen wàllu seen wàllu seen wàllu économie taxaw seen wàllu développement terroir. Mhm. ba maire di dajeek euh, Pape Malick Anne ñuy ñuy échangé di nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy euh, bantu service yi. Mhm. donc kee day génn ci acte de le maire Pape googu nag ñëw ci acte trois. Mhm. ba mu ñëw si acte aussi yaa a ko qu'on du boo ñëwee dafay am kayit bi nga xam ni euh, préfet da koy bind jagleel la ko ci li nga xamante ni yoroo ko woon yow lañ ko jox. Hmm. wala yaa ko yoroon jox nañ ko mairie ville. Hmm. donc ci loolu la la la la Pape Gorgui ñëwee ci mairie bi. ñu gis ne aussi. Hmm. y avait énormément de choses yoo xamante ni bëgg nga ko def mais mënoo ko def. pourquoi mënoo ko def parce que da nga fi fekk mairie boo xamante ni juillet la woon élection yi. Mhm. donc budget bi consommé nañ ko. Mhm. bien entendu ba mois de juillet parce que budget at la donc départ nañ janvier ba juillet donc budget boobu consommé nañ ko. Mhm. donc consommé nañ ko tamit waaye dañ la dolli li nga xamante ni tey buñ ko boolee lépp. maanaam mat na ñaari yoon sa budget. li ma bëgg wax mooy c'est-à-dire bu ñu xoolee euh, bi Pape Gorgui Ndong di ñëw mhm. budget commune ouest euh, euh, Pikine ouest était de d'environ cent cinquante et million millions mhm. toutes les recettes réunies mhm. donc ba ñu ba loolu ba ñu ba ñu fekkee loolu fekk na aussi ñu consommé ko ba mois de juillet aussi maire bi amul woon charge salariale parce que daawul fay salaire 4 millions la doon fay personnel yi nga xamante ni ñoom ñooy subalterne yi donc yow nga ñëw jël jël jël raaya yi ñu ñu jébbal la loo xamante ni tey c'est deux fois plus ce budget bi nga xam am nga ko consommé jusqu'au mois de juillet mais en terme de masse salariale nga dem de titre de 4 millions mensuels à 25 millions de francs mensuels. Mm-hmm. pour un budget dans l'ensemble recouvré qui équivaut à 151 millions. Mmh. donc du coup 25 millions par mois multiplié par 12 ça dépasse de loin li nga xamante ni yow téye nga ko. donc fallait da déjà la l'urgence première moo nekkoon nga stabiliser le budget fexe ba équilibrer ko fexe ba li ngay génne nga mën a am fi nga koy jëlee pour mën a am li ngay génne. donc dans le code aussi des collectivités territoriales. ci wàllu moo jiitu li nga xam moom mooy investissement. te balaa ngay investir dafay fekk nga mën fonctionner. parce que dafa am ay yoo xamante ni nit mënu koo tëb. Mhm. lu mel ni salaire. lu mel ni état civil aussi. parce que boo soxlaa kayit ci mairie bi nga jëm. Mhm. lu mel ni aussi fay fay yenn yenn yenn yenn marché yi nga xamante ni dañu am très directement ak li nga xamante moom mooy fonctionnement boobu noonu. Mhm. donc l'urgence en ce moment en 2014 2015 était de stabiliser le budget de la mairie mairie bi nekk ci nag de 2014 jusqu'à 2017. donc on a essayé autant que faire se peut ñu stabiliser budget bi n'empêche mhm. lépp li nga xam ni le maire Pape Gouguenou fekkoon na ko benn yóbbu na ko fukk wala mu fekk ko benn yóbbu na ko juróom je vous donne exemple mhm. maa ngi lay wax sànq ne la jusqu'à l'arrivée du maire Pape Gorgui Ndong le budget alloué à la santé était de zéro franc arrivé à la mairie da ko jëlee zéro franc en deux mille en deux mille quatorze déjà mu yóbbu ko huit millions ci budget deux mille quinze mhm. deux mille quinze mu yóbbu ko dix millions 2016 jusqu'à présent le budget alloué à la santé est de 13 millions de francs CFA. Mm-hmm. ak loolu mu fexe li nga doon wax léegi ci partenariat grâce au partenariat avec la fondation 221 mu injecté à Dominique un matériel médical euh, équivalent à presque un demi milliard de francs CFA 450 millions ci wàllu matériel médical ci lépp lu nga xamante ni jumtukaay la muy lal. muy matelas muy muy matériel yi nga xamante euh, ñi nga xam ni am ñi am asthme yi ñuy soxla muy machine échographie muy machine lépp li nga xam ni dañ koy soxla si jumtukaay mu jébbal ko service de santé parce que boo ñëwee fekk situation comme ma la wax nii da ngay prioriser li nga prioriser nag au niveau de la commune de Pikine mooy la santé mhm. l' mais surtout léegi daj na est na santé gi daj na ci diwaanu Pikine Ouest euh, bi ngay wax ni santé gi lépp daje na yemb na léegi xam nga xam nga mbir yi lépp mënul yemb mhm. mais xam naa ni daal Euh, Dominique ku fa daan dugg avant 2014 nga dugg fële di nga xam ne am na changement Dominique bañ ko bañ ko defee ba fi mu toll nii ci lañ ko bàyyi moom. ñu dem ci poste de santé municipal 2 maternité ba fa nekk de 1951 ba ni PAM Ndong di ñëwee amul changement c'est-à-dire que maternité euh, dafa def tournée mu dem mu xool mu gis ni les femmes accouche dans des conditions indignes. maanaam ay ay ay ay euh, lal yi ñuy wasine da ngay gis dafay dafay dafay dafay mel ni sax lu xobbeeku lu xuur lu xomaat mu ne moom donc il faut que suñu politique ñu accès ko ci relever un peu le plateau médical de la commune mmh. ci la ñu dem avec euh, nu mu tudd sax le partenaria avec l' état du Sénégal ñu trouver un financement de cent quinze millions pour defaraat li nga xam mooy maternité municipale de ça doit démarrer la semaine prochaine parce que bërki dem lañ doon déguerpi ñi ko waroon et réflexion reconstruction maternité bi dafay ànd ak cadre de vie aménagement autour du poste de santé ba au moins les femmes de notre commune puissent donner la vie dans des conditions dignes et dans des conditions de confort mm-hmm. ci wàllu santé aussi mm-hmm. ma lay wax ni aussi donc euh, le maire Pape Gorgui Ndong à travers la la couverture maladie universelle à pris en charge plus de deux mille cinq cent personnes dans la commune pour au moins ku feebar nga mën dem faju ji on a commencé par les groupements yi nga xam ne dañ leen financé dimbali leen ñu jël leen jox groupement yi nga xam ne ñoom ñoo ànd ak ñoom ngeen di financé euh, xam nga groupement moom mhm. euh, groupement mënoo wax ni groupement bi mën la àndal mais groupement mën na tànn ne yow yaay sama maire yow laay àndal xam nga nit yi moom aussi ki gis ne amal na leen njëriñ moom la ñuy àndal Pape Gorgui Ndong dafa amal njëriñ les groupements de Pikine Ouest derrière la présidente Seyni Seyni Ndiaye mhm. ci loolu lañ liggéey ba tey la couverture maladie universelle jël nañ plus de 500 élèves dugal leen ci couverture maladie universelle plus de 1500 personnes âgées. réparties entre maintenant la troisième âge le troisième âge ak ñi nga xamante ñoom ñooy tey jii les les groupements de femmes ñu jébbal leen ko ba nga xam ku feebar mën a mën a faju donc c' est ça en terme de santé. maintenant euh, parlant de l' éducation l' bi Pape Gorgui Ndong di ñëw le budget alloué à l' éducation était de de 2 donc tey ba mu ñëwee. on a huit écoles publiques écoles publiques yi avant école di tijji on a un programme qu'on appelle APR muy ànd pare rentrée yi donc avant école tijji dañuy def le tour des écoles xool lépp li nga xamante ni moom mooy manquement muy réfection plancher classe yi muy dal dal euh, euh, maanaam dër yi nga xam dafa yàqu. Mhm. muy problème yi nga xam école dañ koo am douche yu yàqu yooyu demee noonu ñu defaraat ba permettre école tey ji ñu mën a ubbi tey jàng tey. parce que il faut accompagner l'état du Sénégal ba nga xam ne yow say école dañuy pare. Mhm. bu fekkee say enseignants pare nañ buñ ñu ubbee la lundi 5 octobre mën nañ commencé jàng lundi 5 octobre. yéen a ngi koy appliquer. à cela effectivement. Mhm. donc à cela s'ajoute maintenant dotation en termes de fourniture scolaire qui euh, on a on on écoute le CODEC. le de des directeurs d'école donc ñoom ñooy toog ñu xool ñu saytu lan la ñu soxla bu ñëwee virgule duñ ko ci wàññi on achète tout on met ça à la disposition des CODEC. aussi à chaque fois que évaluation standardisée dina am wala entrance am la commune appuie le CODEC pour au moins accompagner ko pour mu mën a euh, maanaam def ay évaluation ci conditions yi nga xamante ni conditions yi am solo la. Hmm. ba daaw jéeg on a doté à toutes les écoles de d' imprimantes flambant yi nga xamante ni moo leen di permettre xam nga ni xale yi ni ñuy jàngee léegi mooy seen évaluation yëpp ci këyit la parce que day am ay dessin donc d' habitude parents yi dañu laaj ay ay deux cent ay fanweer pour dem tiire maire dafa dem ne moom bëggul teg parents yi li nga xam ne moom mooy fitna boobu donc mu dem wuti ay ay imprimante flambant neuve jébbal ko les directeurs d'école au mois pour lu ñuy tiire ñu mën ko fa tiire noppal parent mu bañ di fay ay ay frais ay frais ay frais de tirage. Mhm. bu nekkee ñëw nañ ci wàllu jeunesse sport le maire Pape Gorgui Ndong ba mu ñëwee il a trouvé la la subvention allouée aux ASC à cent cinquante mille actuellement toutes les ASC commune reçoivent une de cinq cent mille francs en à cela s'ajoute tous les frais je dis tous les frais de la finale zone 1 de 2012 ba ni may waxee ni ak yow Pape googu Ndong mooy parrain bi li ko dalee ci euh, kawas ba ci maillot bi ci kaw lépp moo koy jënd jébbal ko la zone. Mhm. mooy fay arbitre yi mooy solal commission féminine bu zone mooy solal la zone. moom mooy moom mooy jox trophée yi finalistes yeeg meilleur buteur tout le monde. Mhm. ñëpp. moo leen di jox ay enveloppe jébbal ko li nga xam mooy zone. kon léegi Pikine moom xam naa léegi émergence moom ngeen fay dund ouest dëgg. non ça commence. <laughs> et puis nous sommes appuyés aussi par l' état du Sénégal état du Sénégal à travers le Promoville mi ngi liggéey actuellement am na ñaar ñaar ñaari tali yoo xamante ne c' est des c' est des ñu ngi fa actuellement te bu ñu fàttali aussi ne DAS euh, nu mu tudd si tali DAS fa lañ lancé le Promoville dans le département de Pikine en 2016. mais ci côté euh, Icotaf foofu nga xam ni itam tali bi am na problème lool ci diggante jumaa ju mag ji ak tali boobu xàll boobu itam am nañ problème. itam ak ca tali yi boo fa demee nii boo fa demee nii yaa ngi fay fekk camions yi ñu ngi fattaat yenn tur yi di ko defaraat moom laa wax c'est-à-dire euh, dafa wàccoog département de Pikine mu am ay maire aussi yoo xamante ni dañoo taxaw parce que le maire il a été ministre délégué auprès du ministre de l'urbanisme ba mu fa nekkee euh, ICOTAF 1 dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko jàmbatoon jàmbat boo xam ni est-ce que xam nga ne 1950 54 ba 2016 euh, ICOTAF mësul am assainissement maire dafa demoon toog go paa yi ne ko ñun benn tawat lañ am muy assainissement lañ soxla comme di dugaate mu ne leen du ma leen wax waaw du ma leen wax déet mais saa yuñ ko mënee. nañ ko def parce que assainissement rôle état la bi mu nekkee ministre ci wàllu ci côté Diène ba Sarr nekk ministre délégué ci la yàlla woo yàlla mu am programme bi ñëwee le programme des dix villes ci wàllu assainissement mu fexe ci lëkkaloo gi mu lëkkaloo état du fexe ba dugal ci la commune de Pikine Ouest ak Pikine Est donc tey bu demee Icotaf burki démb la fa DG waroon jaar je sais jaar na fa donc pour xool travaux yi parce que assainissement jaar na Icotaf 1 Icotaf 2 ak zone industrielle. Mhm. donc loolu avancé la. Mhm. donc tey moom kese ci ci maire yi boppam la ci maire moom vous voyez que li ko dalee CM Tidiane yi Daaru Pikine 2 Pikine 2B donc devant alentour de école yëpp ñu ngi koy defaraat defaraat ko mu ànd ak aménagement cadre fii daaru aussi ñu ngi fa teg benn benn def nañ fa jardin public boo xam ni au moins nit ñi daañ ñëw di di noppalu di féexlu ci foo xamante ni bu ñu bu njëkk bi limu mu meloon da koy da nga da ngay sax sa xel day day day teey mhm. donc tey boo ñëwee xurunaar aussi jardin bi fa nekk wetu kër Lobaat Fall donc jardin bi fa nekk laa raxasukaayu oto la woon donc tey defar nañ ko ba mu rafet nit ñi di fa toog espace yooyu yëpp le maire a mis là-bas des fi wifi gratuits donc ñun ci loolu ci loolu la ñuy dox. ci wàllum sécurité bi xam nga defar ba mu baax itam te sécurité bu am bu ñoŋ amu ca itam yàqu-yàqu lay indi. effectivement effectivement loolu d'abord il faut sensibiliser population bi ci ñu jël en considération seen seen seen rôle citoyen mhm. mais en même temps aussi euh, mais je pense que daaru euh, jardin public daaru ak jardin public Xurnaare am na ñu fa toog di ko saytu. Mhm. am na ñuy roose. Euh, nu mu tudd sax fleurs yi fa nekk. Mhm. am na ñoo xam ne aussi ñu ngi koy xool. ñu ci gërëm baax a baax Pape Sarr parce que moo moo nekk moo nekk foofu noonu xudunaar euh, mhm. ak waa daara yi nga xamante ni ñoom dañoo takku ne seen yëf kenn du ko yàq. Mhm. donc tey jii nii nous sommes en train de refaire les alentours de école 2 B Daaru Pikine ak CM Tidiane yi pour dote ko. d'un d'un d'un aménagement mhm. paysager boo xamante ni day permettre ku fa romb mhm. ku fa romb rek xam ne lii au moins changé na fan la bëgg yóbbu commune bu Pikine Ouest non mhm. euh, euh, fi ñu bëgg yóbbu commune Pikine Ouest mooy la ma waroon doon depuis mille cent mille neuf cent mille neuf cent mooy mooy vi Pikine Ouest mooy capitale département bi su ma ko waxee peut-être ñiy déglu dëkk Pikine Nord wala Pikine Est daañ mais Pikine Est Pikine Ouest Pikine Ouest mooy capitale département bi toutes les infrastructures publiques administrative du moins ñi ngi biir Pikine Ouest le commissariat d' arrondissement mi ngi biir Pikine Ouest le sous-préfet la sous-préfecture d' arrondissement mi ngi biir Pikine Ouest mm-hmm. la paroisse département de Pikine mi ngi biir Pikine Ouest kër Serigne Touba mi ngi biir Pikine Ouest kër Cheikh Mouhamadou Ti Habib Tidiane mi ngi mi ngi biir Pikine Ouest donc ça fait que Pikine Ouest moom moo moom moo moom moo moom moo téye actuellement l' administration de l' arrondissement donc tey mooy capitalu mooy capitalu capitalu département bi. Mhm. donc boo ciy liggéey da ngay fexe ba liggéey ba ku dugg rek. Mhm. day xam ne maa ngi dugg ci biir Pikine Ouest parce que kuy dugg fi ngay njëkk jaar Pikine Ouest la fi ngay mujjee jaar. bu fekkee da ngay da da maanaam da ngay da ngay dugg biir da ngay da ngay génn. Mhm. donc Pikine Ouest la. donc tey il faut benn approche boo xamante ni mooy def Pikine Ouest vitrine. lu des léegi kon lu des ngeen matériel loolu. non ñu ngi ci. su ma la nee Euh, commencé nañu daaru Pikine Pikine de b CM Tidiane buntu Pikine la. Mhm. su nee tey jii nii par exemple maternité euh, maternité euh, comment dirais-je municipal de buntu Pikine la. Mhm. bu ma nee par exemple tey jii nii comment dirais-je jardin public bu daaru buntu Pikine la. Mhm. donc nous y sommes. nous sommes en de réfléchir sur un programme euh, programme de euh, stratégique de, pour l'émergence de Pikine Ouest mhm. pour teg ko mu dépasse sax personne Pape Gorgui Ndong mhm. ba ëllëg si biir bu fi jógee mhm. kenn ku nekk donc aussi di nga mën a sukkandiku ci loolu mu nekk référence bi nga xamante ni euh, ci la ñuy a sukkandiku dinañ ñëw ci njeextal yi ñi nga xam ni ñoom ñoo koy diir mbagg ci commune boobu dinañ ci ñëw ci njeextal yi donc dañuy waxtaan beneen ponk bi nga xam ni xëy na indi na coow lu bari ci digg ci diwaanu Pikine euh, Ouest muy coowal rond point Dominique. Mhm. indil pikin noor jàppal Pikine Ouest. Mhm. kenn xamul euh, fan ngay teg sa tànk. Mhm. Euh, moom mi nga xam ni dalaloon nañ ko fi Amadou jara wax na itam euh, ci li nga xam ni moom moo jëm ci rond ba. ca bosam la bokk. yow nga fi teewal tey waa commune bu Pikine Nord. lan nga nu mën a wax ci rond point Pikine Nord boobu. xam nga xam nga rond boobu man français laa lay wax. après ma teg ko ci olof nit ñi xam li may wax lan la. dafa am décret boo xamante ni mooy décret 1996 bi nga xam ni moom mooy euh, euh, d'abord créer commune d'arrondissement yi. Mhm. mais en même temps mu délimiter leen. ba muy créer ñu suñ commune daf ko daf ko délimiter ci ouest délimiter ko ci est délimiter ko ci nord délimiter ko ci sud. Mhm. bu ñuy délimiter commune de Pikine Ouest à l'ouest dañuy wax ln e mooy. boo jógee fii route nationale bi. Mhm. mooy Mirouz Faye Sall. maanaam euh, euh, intersection ba. miiru mhm. cité Faye Sall. Mhm. nga topp lisière ñaay bi ba keroog ngay dem ci centre horticulture bi loolu mooy délimitation à l'ouest hmm. mu ñëw mu ne la beneen bi mooy nga déparé fi mu la wax RN1. Mhm. ba ci pont ferroviaire bi maanaam boo rombee boo demee ba ba romb ba romb euh, nu mu tudd sax arène buntu Pikine romb continuer mel ni ku jëm ci rond point bi côté NMA bi noonu. ci booru raay bi noonu fa ngay taxaw beneen bi moo déparé fi ma lay wax nii ci booru raay bi topp raay bi dem ba euh, nu ñu koy def sax euh, débouché bi nga xam mooy débouché tali Dominique ak li nga xamante moom mooy moom mooy raay bi. nga déparé foofu mu ne la tali Dominique de soo débouché sur le chemin de fer. jusqu'à son intersection avec la rue du Point. tali tali Dominique mooy tali bi jaar buntu Dominique. moo déparé ci raay ba jéggi Icotaaf romb station ancien trésor ba romb euh, nu ngi stade Alassane Djigo romb maire moom amalu Diarra mm-hmm. nga romb Dominique rond point Dominique boobu nga romb ko jaar bunt biyaawoo dem ba Rudis nga taxaw mooy le point Rudis Rudis jusqu'à la première ruelle au nord débouchant sur la lisière de la Niayes maanaam boo taxee Rudis ruelle bi la féete nord foofu noor moo jëm ci centre horticulture ba mooy ma lay wax sànq bu muy dagg ouest da ko yemale fee ci centre d'horticulture bi. nord bi moo jëm ci centre d'horticulture bi. donc ce qui fait boo départ rond point Dominique xam dafa am benn tali bu jaar buntu Cheikh Anta Diop. ci la ci la le di jaar Amadou jar di jaar pour xaw a nësaxal xel yi. waxuñu ko tali boobu. saa dañ la ne tali Dominique de son inter de son débouché sur le chemin de fer. jusqu'à son intersection avec la Réduce mooy da ngay romb buntu Biaw maanaam da ngay bàyyi tali yoonu Cheikh Anta boobu da ngay romb buntu Biaw dem ba ci Réduce bi nga taxaw donc li la féete fii yëpp ndey càmmoñ yëpp maanaam Pikine Ouest la. Mhm. li la féete ndey yor Pikine Nord la. à cela s'ajoute mhm. tey boo demee fi ñuy fi ñuy xëccoo nii. Mhm. ci adressage bi ci adressage. boo demee amul fooy dugg fi muy wax lu jul dañ ko fekk tableau boo xamante ni dañ ci def rue PO. numéro nangam rue PO mooy rue Pikine Ouest ñi ko def defuñu ko ci seen coobare bakkan parce que ñun fayuñu leen moom fayu leen donc ñoo dañu ko def par rapport ak li nga xamante ni moom mooy norme yi. Mm-hmm. maintenant débat la boo xamante ni on a eu à euh, on a été à l'ANAT muy l'agence nationale de l'aménagement du territoire. Mmh. la supervision di ministre des collectivités territoriales. Mm-hmm. muy Omar Gueye donc moom moom le maire Amadou Diarra qu'on salue o passage. moom mi ngi fa woon le maire Pape Gorgui Ndong mi ngi fa woon donc l'ANAT a a décidé de suspendre les travaux yónni ay techniciens. ñëw nañ donc ñëwaguñu. Mhm. donc yónni ay techniciens pour ñu xool par rapport aux données topographiques yi ñu am donc ñu mën délimiter géographiquement ñaari communes yi. Mhm. donc loolu ñu ngi ci xaar. moo tax dossier bi sax man bëggatuma ci sori lool. Mhm. parce que aussi ginnaaw mi ngi ci loxo ANAT. ak loxo collectivité territoriale. je pense bien que dëgg fi mu féete. dañ ko xam bientôt. te ñoom moom nee na wóoluwul ñi nga xam ni ñoo di waa ANAT ndax ñoom jàpp nañ dañ leen di jàppal tànk ndax euh, jàpp na ni euh, rond bi yéen da ngeen ci bëgg a xëpp suuf rek ndax moo ñëw taxaw. mooy li ma defar loo xam ne rek li ma lay wax sànq ci mm-hmm. opposition Sénégal. Mm-hmm. Oh, waa mais fii mbiru mairie yi <laughs> waaw ba tey mais nee na ñëw mu defar rond point boobu rafet ngeen ngeen bu ko xañ. ku ko defar xa du xañ. Euh, xam nga le maire Amadou Diarra il est intelligent de. soxlawul rond boobu rond point bu mu defar yàlla xam ne soxlawu ko. lan la li ñuy wax ci combat la kii tient le haut tient les bas. dafa defar rond point pour fële defaru ko pour rond point bi rek ni mu ko neexee noonu da ko defar rond point pour continuité bi ci ginnaaw booru arène bi pour foofu mu mën a ñoŋ parce que tout le problème part du rond mu njëkkante mais ñun nous voulons être nous voulons être une commune respectueuse des autorités administratives. Mhm. yi nga xam ñoo yilif dëkk bi. ginnaaw ba zone dafa nekk fertilité yi ñun recouvrer sax duñ ko def. Mhm. xaalis duñ ko fa jël dañ ko bàyyi ak lépp donc moom mooy recouvrer mooy def lépp. Mhm. maintenant ñun ba keroog nag yoon di àtte ni ndax dëgg yàlla saa mhm. lii fii nii. fii la yem lii fii nii fii la yem lii kee moo moom la la kee moo ko moom donc c'est ça. te di ngeen ci bàyyi seen waar euh, li ñu àtte di ngeen xam ni loolu am. ah oui effectivement. ah oui parce que loolu suñu xam-xam xam-xamu ay topographe la. ay loolu la. buñ ñëwee àtte nañu yéen Pikine Ouest moomu leen ko mhm. ci jour bi dañuy wax ñëpp ne leen Pikine moomu moomul loolu mhm. bu nekkee ñoo ko moom nag mhm. dëgg yàlla dañ koy jël ba est-ce que euh, wax ji kon coow li yéen bu ngeen ko regle woon seen biir rek est-ce que dina mujj tey ci anat naam ñoom ñooy saytu li ni mel mais bu ngeen toogoon waxtaan ko est-ce que tey euh, bruit bu bari bi yëpp dina ci am ah waaw souvent nag des fois bruit day baax de souvent des fois bruit bi li ñu lay permettre mooy nit ñi xam ne au moins coow laa léegi mën ko réglé donc loolu moom euh, boo xoolee euh, ñun bañ ci waxee la ñu bàyyiwaat lépp ci loxo anaat mhm. donc anaat moom ginnaaw ba wóolu nañ ko mhm. ñun boog Pikine Ouest wóolu nañu anaat mhm. wóolu collectivité territoriale moom nag nee na wóoluwul anaat moom ah, mais moom moom la rek <laughs> monsieur le maire Amadou Diarra saa moom laa la wax politicien la nag punkalu politicien c'est-à-dire il prépare la population parce que xam ne ni euh, moom loolu moomu ko donc day préparé population ci dañ ma contrat na ñu àtte yoon ak wala nangam sànq mais euh, le maire Amadou Diallo en tant qu'intellectuel seen maire seen maire yi bëri na polémique de ndax euh, jóge ci rond point ñëwaat ci suuf sama suuf ma yokk sama armeel ñoom itam déggoon ngeen leen fii euh, fu nu mujjee ndax mujjee ngeen leen jox suuf itam. non xam nga sama suuf ma xaw ma lan. ma yokk sama armeel voilà très bien donc collectif la. Mhm. buy ñëw di laaj. au nom du département. ñun ñu war a répondre au nom de la commune de Pikine Ouest. ça pose un de souveraineté. département bi. cimetière yi dafa newoon cimetière départemental. pourquoi parce que boobu commune amul. département bi yëpp moom ko mais instant yi nous sommes sous l'ère de la communalisation intégrale. département bu ñëwee di laaj commune daa am nu mu koy laaj nu mu koy laaje mais boo ba bëggee ñëw. Mhm. xaw a nasaxal mairie bi xaw a jaay ne collectif la ñu. Mhm. bu ñu doon un million de personnes et je le dis bu ñu doon un million de personnes ñu taxaw di laaj. Mhm. mënuñu laaj ba Pikine Ouest jox leen pepp suuf ci lu jaarul yoon. nous sommes d'accord pour pour pour pour pour pour pour la la la réouverture. wala euh, euh, nu mu tudd sax euh, yokk ay cimetière. <laughs> parce que il faut faire nu mu tudd sax la différence. soit ñu ne dañuy yokk wala ñu ubbi yu bees. mais fin moom yokk mënu fa am. ñu ne da ngeen am lu ngeen fa prévoir moo tax. non xam nga toujours nit ñi mais la commune doit prévoir ça pour quelque chose là sax. Hmm. no c'est c'est par force là ñun on prévoir d'autres choses que suul ay néew saay bu fekkee dañu wax dëgg rek on a prévu ñu yokk ay armères dañ ko prévoir. foofu ci bërëb boobu nangu nañ ko parce que hmm. c'est c'est délibéré par le conseil municipal. Hmm. di ngeen ko joxe. non da bu fekkee état jox nañu ko. xam nga def nañ euh, délibéré def nañ conseil municipal pare. délibéré nañu. conseil municipal nee na. dafa bëgg yokk wat gaynde donc pour yokk ay armeer mhm. pour def maison de la femme pour def maison de la jeunesse pour def aussi benn benn benn centre benn euh, terrain multifonctionnel. Mhm. donc ak ak euh, maison de la jeunesse. Mhm. ñun ci loolu lañ délibéré ak village artisanal ci loolu lañ délibéré boo délibéré pare euh, selon normes yi nga xam moo état bi réew mi. donc da nga koy jébbal état du Sénégal parce que yow moom ko moomoo ko parce que domaine privé bu état bi la état bi moo ko moom. Mhm. bu ko mairie soxlaa li mu mën def mooy procédure bi ñu def ñun te loolu leen maire waxoon c'est-à-dire da ngeen di ñëw ñu dolli ko ci kii bi ñu dem wuti jundoo ko mais bu la ma wax ci combat ci mbedd parce que new ma ci combat yooyu parce que un du nekk ci mbedd mi naan day marche mhm. non da ngay jël requête bi dem lijjanti ko fi nga ko war a mais pas ci mbedd mi di def tentamar di sonal nit ñi wax leen loo xamante sax à la à la à la à la fin. Mhm. politique moo moo moo moo moo taxoon jóg. Mhm. donc maintenant ñun def nañ ñu war a def on a écrit on a envoyé à la sous-préfecture sous-préfecture moom mooy yor euh, moom ak waa domaine ak état du Sénégal ñoo baat bi mujj ñoom la. Mhm. mën nañ ñëwaat ne kenn du leen ko jox dans ce kenn du fa def dara mën nañ ñëwaat ne jox nañ leen ko dans ce nag nee nañ leen dañ teg commission boo xamante ñoom sama suuf dañ ci nekk. jeunesse bi dina ci nekk. jigéen nañ ci nekk artisan nañ ci nekk pour kenn ku ne la nga yeewal war ko am nga jël ko <laughs> léegi ci wàll woom gis nañ ni euh, sànni xeer yi dafay tibbee fu ne déggoon nañ fi monsieur le maire Pape Gorgui Ndong Pape Thiam ak keneen koo xam ne itam kàngam la ca diwaanu Pikine Ouest ñoom ñëpp toogu bi lañ bëgg ndax euh, da ngeen di dëgëraatal toogu bi yootuwaat wala le maire Pape Gorgui Ndong est candidat à sa propre réélection ñun ñun ñi nga xam ñoo far APR nous some derrière le maire Pape Gorgui Ndong pour sa réélection à la tête de la commune de Pikine Ouest et je le dis te jàpp ngeen ne bilan bi mën na leen yóbbu. non duñ dem ak ñoom sax midi. élection yi bu doon suba la Pape Ndong bu ñëwee suba mu mu duma leen parce que des gens yoo xam ni danga la wax tey dama koy wax Pikine Ouest ñëpp di ko dégg. Mhm. Euh, dafa am ñu ñëw ci commune bi. jiital fen ci seen politique et yow di pourquoi yow lampadaire solaire yi yow xam nga ni programme président Macky Sall la mooy le programme des cinquante mille lampadaires commune bu nekk ñu jox la ci yow nga ñëw ci commune parce que nee nga xaw ma nga nekk xaw ma loo fa doon ñëw ne yow yaa indi lampe solaire biir commune bi loo xam bañ koy def boobu xalaatagoo sax politique parce nga dugg koñ bu nee di ko maanaam gis nga nit booy booy tàmbali mbir di ci fen maanaam waruñu la ñu rafetal kàddu gi waaw waaw ah duñ ko war a tuddee <laughs> waa ñu di wax lu dul dégg loolu lu mu teg ci olof mhm. nga ñëwaat état bi ci mbaaxam ak mbaaxu président Macky Sall xam gaynde gi Pape Gorgui Ndong doon la mu war a xeex mu xeex ko parce que ba dem yàlla xam ne ni ba ñuy dem Promoville parce que projet yi déjà dafa xaw a nasax na nasax projet Promoville yi ñuy liggéey actuellement maire ba ñuy dem di Promoville jam eh, ñaajo man maa dem ànd ak moom ak Lazare Diédhiou ak madame le maire Anta euh, Anta Sibi madame la l'adjointe au maire Aïda Badji le délégué de quartier euh, El Hadj Soumaré mm-hmm. ak Aliou kamara ñun ñoo dem ànd toog madame Joxaane toog point focal bu Promoville toog maire tegaat plaidoirie yi tali yii ñuy defar nii mu tegaat ko taabal ji pour xeex mu ñëwaat ci biir commune bi donc euh, ba ñu defee loolu. on a mhm. vu que ni quelque temps après les travaux on commencé. Mhm. yow nga ñëw nga ne dama bëgg nekk maire ñëw ci commune bi ne leen tali yi maa ko fi indi c'est que nit ñi dañuy yebaate président Macky Sall Pam Ndong sax defarul tali Promoville yi c'est le président Macky Sall dans sa vision claire. Mhm. dans à travers le programme de modernisation des villes mu indi dans la commune de Pikine Ouest la deuxième phase du Promoville mu des beneen phase moo wax naa la sànq ne lañ ko njëkk a lancé muy tali yi wër daas bii muy ñaari tali yi jaar koñu curu bi ak koñu euh, koñu technopole bi loolu président Macky Sall la. Mm-hmm. est-ce que yéen jàppoo leen nii Cheikh Thiam dafa commencé am doole moo la ngeen commencé ragal itam. parce que au delà de Cheikh Thiam itam am na ki nga xam ni mag moo di Thierno Ndomba ñoom tam. ay kàngam lañ ca Pikine Ouest xam nga ñoo ñëpp yaa xam seen tur. Mhm. ko weddi itam xam nga kàngam mooy lan. Mhm. xam nga kàngam mooy lan mooy koo xam bu neexee ak bu naqaree nit ñi di la gis. léegi loo bëgg a wax foofu. nga ñu ngi may wax nii. Mhm. bañ xamee ne dàq nañ élection yi. la ñuy gëj a gis Pikine Ouest. ñëw nañu ñëw nañu ba benn moment boo xam jàppoon nañu élection day am deux mille dix neuf deux xaw ma deux mille vingt et un deux deux mille dix mhm. amut ñu jëlaat seen brio ak seen i delluwaat fa dëkk almadi dañuy fanaani. da nga jàpp ni seen intérêt lañ fa. Pape Gorgui Ndong. Mhm. amul ndom ba baat bu ko fekkul biir Pikine Ouest avant muy nekk maire ba ni mu nekkee maire ba ni mu nekkee nu mu tudd sax fële si FD Sud ba ni mu nekkee ministre délégué. ba ni mu nekkee ministre de la jeunesse ba ni mu nekkee PCA musul génn Pikine Ouest mu neex mbaa mu naqari muy mbiti mbaa muy neex ma nga fam toog nit ñi di ko fekk di leen wax di di di ko wax seeni soxla bu mënee faj bu mënut di wax la nga bàyyi beneen donc c'est le seul bi nga xamante ni c'est le c'est la seule autorité parce euh, que population loolu nga bëgg a wax euh, population ba maanaam mooy maire boo xam ne jege na askanam jege bien yi day toog ak nit ñi di naan ataaya day dem ci dëj yi day dem ci ngénte yi mais koo xam ne yow faloogoo mu mitti nga daw alma di toogi keneen ki faloogoo sa kër papa bi nga dëgg fii ko daa sax kenn gisatu la fi nga ne da nga bëgg nekk maire commune bi mais mais ñi ngi koy xam ci bu mittee nga toog. danga jàpp ni du ñoom quoi. ñooñu dañu mënta sax jiite quartier bay jiite commune et puis nga ne APR nga bokk tu viens tu défies le président de ci koo xam ne administration Sénégal nga nekk yow nga ne danga damay jàppale le président de la République APR laay jàppale tu défies le président de la mu ne maa indi lii yow nga yow population bi ne yaa ko indi lap doy na waar quand même ah waaw mais man bëgg naa nit ki bu amee ambition ci ci ci ci ci ci wàllu politique mu affiché ko nous sommes des démocrates mais faut pas faut pas mentir moo ko ci français pour terme bi gën rafet faut pas mentir la population jàmbaar wax leen yaay kan nee nga Pikine waa nga man de wax dëgg yàlla Pikine laa juddoo. Mhm. jàngee école onze jàngee CM Tidiane jàngee Seydina Limaamu Laay alxuraan biir Pikine Ouest ku fa dëkk xam naa la one n'est pas pikinois de l'ouest en deux mille dix neuf. Mhm. ñu jël loolu ci ligne bi mbokk moom salaamaaleykum allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar. tur bi. di nuyu suñu directeur cabinet boobu nga xam te ne moom euh, invité tey. waaw bisimilah yow la ñuy déglu. waaw Moussa Diop la. agent municipal maire primaire bi. waaw ñu ngi lay ziar. Mm-hmm. waaw bu baax a baax. jërëjëf. waaw di la wax ni rek. saa su nekk rek Pikine Ouest ngi xool li nga xamante ni si nii maire bi ñu ngi xool li nga xamante ni mooy doxal commune bi. Mm-hmm. mu ciy dox rawatina suñu directeur cabinet boobu nga xamante ni tey moom nga invité. Mm-hmm. wax dëgg ne yàlla mi ngi xool li jàppale maire bi mi ngi xool tamit liy jàppale commune bi mu si saa su nekk. Mhm. waaw koy yokk rek ne ko di courage. Ah, yoon bi gudd na. Mhm. yaatu na te bëri na xaaxaam. Mhm. mais jàpp te bàyyi rek lépp dina baax incha allah. am na solo. jërëjëf. <laughs> donc émi euh, élection bu doon suba yéen pare ngeen ba pare ndax ay can candidat ngeen te Pape Gorgui Ndong. gis nga jàpp nga ni bilaam xoolul gaay li ma lay wax nii. man damaa fekkee première maire Pikine Ouest man dafa ma fekk deuxième bi dafa ma fekk troisième bi dafa ma fekk ba moom mii mooy quatrième maire <laughs> doomu Pikine rek moo mës yor Pikine Ouest ñii ñoo jaay xuru Vox. te dama jàpp ni moom góor gi Ndong mi ngi remplacer. Euh, kële Pape Malick Anne Pape Malick Anne. Mhm. ay doomu Pikine Ouest ñoo jaay xuru Vox. en face cinéma Vox yoonu kër sëñ Touba bi ay doom Pikine Ouest ñoo ko jaay ay doom Pikine Ouest ñoo délibéré sur dix hec hectares ñoo ko jaay. dama la wax c'est-à-dire que ay mm-hmm. ko jaay musuñu xalaat ni. Mm-hmm. musuñu xalaat ni. Mm-hmm. la commune de Pikine Ouest. a besoin d'espace pour la promotion de sa jeunesse. mësuñu xalaat nii les équipes nawetaan de la commune. Mhm. amul benn équipe nawetaan bu ne ci biir commune bu am terrain bu ñuy entraîner mësuñu koo xalaat c'est le seul Pape moom kese. Mhm. moo fi ñëw xalaat maison de la femme moo fi ñëw xalaat maison de la jeunesse. Mhm. moo fi ñëw xalaat village artisanal moo fi ñëw xalaat réfectionné ab maternité boo xamante nii ñun ñii maanaam suñu ay sëtam lañu. parce que 1951 ba léegi la fa. yàgg na. moo fi xalaat maa ngi ñëw moo fi xalaat indi ay ay ay ay jardin c'est le premier maire truelle à la main qui investit pour le bien-être de la population de la commune kooku bu fekkee élection yi njëm nii wax dëgg yàlla na ci tiit ay nit ñoo xamante nii maanaam c'est des pingouins politiques cest à que tey jii euh, li li ñuy def rek mooy ñëw nax population bi jaar seen bopp nangam sangam loolu loolu fokkul bëtu waa Pikine Ouest au fait à cela le financement à hauteur de deux cent millions pour les femmes groupement de femmes yi ni kenn ku ne million ngay leb un million ngay fay weer bu dee bu ne maire génn ci salaire am bind chèque-am def ko virement jox ko waa banque moo koy fayal boppam du maire de waxuma la maire de moo koy fayal boppam. am na solo gis nga bu bilan nekkoon social social bu nekkoon bu nekkoon bilan bu ñuy présenté la ci maire yi. Mm-hmm. Pape Gorgui Ndong. Mm-hmm. mi ma xam man étant DG étant Euh, nu mu tudd sax euh, comment dirais-je FD Sud. Mhm. étant ministre délégué étant ministre de la jeunesse ba nii mu nekkee PCA. wallahi azim ma main sur le Coran. Mhm. Pam Ndong du lekk xaalisam. am na solo waxtu bi mooy moo ñu tënk nag wax bi moo ñu tënk <laughs> émission bi neexoon na trop amoon na solo itam. Mhm. di rafetlu itam sa ñëw ci émission bi ñu bàyyi la rek nga tàggatoo waxtu bi moo ñu xoj. waaw fi may tàggatoo mooy nuyu waa Pikine aussi yëpp dans son dans leur ensemble. am na solo. ñëw nag ci lancé. Mhm. appel ci ndawu Sénégal. xam naa duggoo ci mais. Mhm. dinaa waaw. <laughs> yeneen beneen jotaay ñu ko may damay lancé. Mhm. un appel. ne réew mi ñoo ko ñoo ko moom. buñ dara may walla dara jaral ñu ñu koy taal. magam jëmm bu toog ba guddi nga sol sa capuchon taal sa oto dem ci salon ñu lay maase. ba dara dal fa. boo génnee bëgg ci engagé ndaw yi mooy mbirum naafeq dugg na. am na solo waaw donc may woo ndaw Sénégal yi ci ne. Mm-hmm. li ëpp importance. Mm-hmm. président Macky Sall ne ci. Mm-hmm. di ko defar mooy nañ defar jikko yi ba pare. Ah, am na solo parce que ab émergence mënut a dem. sans pour autant ndaw yi. rendre kon ne li ñu leen defal nii ñoom ñëw ko moom. donc benn nit bu mu ko yàq. jërëjëf ci bànneex bànneex bakkanam. koo xam mhm. da nga nekk sa bànneexu bakkan topp sa bakkan ba la say fekk fekk la ca. Mhm. bu kenn topp nit. ci loolu bay taal sa réew. même bu nekkee Ousmane Sonko la tudd. <laughs> Bah Diakhaté ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax si sa invitation ci li ngi nangu see info invitation bi ni mel di gërëm sama nattango bi nga xam ne moo nekk ci bee vitre bi Adama di ko gërëm di ko sant bu baax mm-hmm. di leen mm-hmm. jox mbokk yi dig daje mm-hmm. beneen dimanche ak beneen invité si rajo Rewmi FM ci émission gox bi